وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أكبر أشهد أن لا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم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 بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعملون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا من تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ۖ وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina s-siraata al-mustaqiim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 وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر salaamun hiya hatta matla'il fajr allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamidah allahu akbar الله أكبر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 لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله asalaamualeykum. asalaamualeykum. allahumma anta salaam wa minka salaam.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 bunti àjjana yi te loolu mooy lu baax jàppandi ci safaan jafe ci nan ko fonk bàyyi xel ñaari farata yim am te faaw day jiitu fajar te it yéene woor wépp ci guddik tey jii nañ nañ ko yéene balaa fajar te yéene weer yépp loolu doy na ak donte ne sopp nañ di ko yeesal guddi gu ne farata jeneen ji mooy fegu ci lépp lu yàq koor na wa kaffuna an muftiraat muy lekk muy naan muy jaxasoo ak yu ni demee li ko tàmbalee fajar ba jant bi so te jublu ca jaamu yàlla rekk am na it moom koor ñetti sunna yu mata fonk muy gaaw a dog gannaaw bu jant bi soo ak yéex a xëdd tem jëkk fajar gaawa dog njogan lay doon ni ba fajar wees itam ba ngay xëdd itam googu yeex itam xëdd lay tudd ndékki lay tudd boobu sans fon waxtu xëdd nag mi ngi dale ci xaaja guddi ñetteelu sunu yi tëye aw làmmiñ ci wax ju amul njariñ ju ne di fàttali it ne sëriñ bi noon na koor gi am njariñ tey dëgg dëggi koor ndékki lay tudd boobu sans fon waxtu xëdd nag mi ngi dale ci xaaja guddi ñetteelu sunu yi tëye aw làmmiñ ci wax ju amul njariñ ju ne di fàttali it ne sëriñ bi noon na koor gi am njariñ tey dëgg dëggi koor Euh, mooy nga wooral cër yépp ba xalaat yi sax fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi yàlla nu yàlla defal ndimbal ak tawfiq ban mën a sàmm war may weer wi ba jot ci mbooleem lim làmboo ciw yiw ci barkeb sëriñ bu mag bi jërë ngeen jëf yàlla nañ ko teewe ay déwéni déwén yu bari ci gannaaw suñ kilifa gii di a cheikh Mahamadou Mountakha di ndimbalul yoon wi di sagub diine ji ak réew mi ak ci gannaaw kilifay diine yi ci réew mi yépp tey liggéeyal lislaam ak xafidahu llahu taala wa raa wa salallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain kul amin wa antum bi alfi alfi xayr bal bi triliyoni xayri maa ngi jéglu ñépp ci lépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu